Sénégal qui ne sont assis sur rien. en 2024 ce pays vivra jusqu'à après 2024. on sera tous ici. mais ce que je dois faire mes droits je les je les exercerai. personne fii ci àdduna mënu ko def. mais vous êtes pour ça. mais lan moo fi am ba ngeen di jóor lacrymogène. vous êtes de faire ma tournée. ce que vous ne savez de faire ma tournée si vous m'avez laissé. il n'y aurait aucun problème. tous ceux qui sortent là. Mais moi, je ne les ai pas appelés. Dieu m'est témoin. Hier, j'ai fait un live. J'ai dit, je ne vais je ne vais pas campagne. Je vais campagne, je vais trouver les gens salue. Mais moi, si j'entre dans ce quartier-là, les gens loolu mën ma ci dara. et vous allez entrer dans le quartier pour faire des lacrymogènes. man dëj sax su ma ko demee jaale nit ñi génn. nit ñi génn waaw. quand je vais chez le khalife général des Mourides quand je sors les gens crient. Sonko donc loolu. yàlla moo ko def. mais mais pourquoi donc. mais mais moi. quel attroupement moi je suis en train de circuler. nous prions tout simplement. regardez où je suis en train de. vous allez chez l'imam. Oui. Je suis allé chez le Je suis allé ici chez le Mouride. Je suis allé chez ma belle-mère. Non, le ban attroupement. On ne va pas suivre à l'intérieur parce que ça Mais attendez, non, j'ai dit. Mais vous êtes sur la voie publique. Est-ce que vous m'avez vu appeler quelqu'un ou dire venez sur la voie publique C'est le connu. J'ai dit, est-ce que vous m'avez. Vous savez, mhm. moi je suis juriste. mbokki Sénégal asalaamaaleykum ñoo dellu si ci diir bu gàtt donte tàmbaluñu ñu leen noonu loolu fas yéene waxtaan ak yéen ci lu gàtt gàtt gàtt tey mooy tey Sénégal ak àdduna yépp ñoo dundandoo ñoo gisandoo li xew fii ci département de mbuur rawatina ci commune de Joal Fadiouth ñëw nañu di def suñu nemmeeku tour ni ñu ko yëgle woon mooy jàpp nañ ni en tant que acteur politique rawatina koo xam ne namm ngaa jiite réew war nañoo dem dajeek Sénégal yépp kenn ku ne nag li gën ci ndaje bi mooy ñu fekk la fa nga dëkk mën a waxtaan ak yow ci contexte bi nga xam ne mooy contexte bi ngay dund door nañu bésu tey bi doore ko njaga ñaaw ndax xam ngeen ni dañ fa am dëj suñu rakk suñu mbokk parti Bassirou Diomaye fay mi nga xam ne magam wàññeeku na fi ñetti fan ci gannaaw yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko jóge ñaga ñaaw ñëw nag ci commune de Nguéniène ñëw fa ñu dalal ñu fa dalal bu mucc ayib waa dëkk bi yëpp génn ñu waxtaan ak ñoom déglu leen ci seeni mbëbët ak seeni jàmbat waxtaan ak ñoom it ci suñu gis-gis jóge foofu wéyale tournée bi dem jiwaalo waaye bi ñu eggee jiwaalo la jafe-jafe yi commencé ndax fekk nañ fa ci takk der loo xam ne jéggi na dayoo te ñun ñëpp ñu xam ni takk der yooyu la ci ëpp tey la jóge ndakaaru ñu mobiliser leen andi leen fii ci département de Mbour ngir suñu tournée bi ñu ñëwee Jiwaalo li ñu njëkk a def mooy dem seeti imam mu dëkk ba saafonteeg moom nuyonteeg moom waxtaan moom ba ñu jógee foofu ñu dem seeti ñu dem kër labbe seeti monsieur le curé dem nemmeeku njabootam waaye bi ñu nekkee ci biir salon wu euh, euh, monsieur le curé ci lañu capitaine de gendarmerie bi ak ki toftalu ci moom ñëw fekk ci biir salon ne ñu daf ñoo soxla ma ne ko capitaine génnal nga dem xaar ci biti ndax li ngay def du teggin ci république bi ñu nekk te yow biir la biir na la ni bari na kër kilifa diina goo xam ne su doon foofu laa nekk sa fit mayu la nga ñëw fekk ma ci biir salon am maa soxla donc boo ma soxlee demal nga taxaw ci biti ba ma pare li may def bu ma génnee dinaa wax ak yow bi ñu paree génn wéet ak moom mu ne moom dafa am réquisition préfet boo xam ne dañ ko ne man aw ma sañ-sañ ci li ma li may def ñu ne ko ah war ñu réquisition bi comme dama ànd ak maître Tall te muy avocat te bokk ci département bi ñu laaj ko réquisition bi mu génne réquisition bi won ñu préfet bind ci ni lim leen sant mooy nañu doxal ordre nañ ko rétablir mooy nañu fexe ba am maintien de l'ordre d'abord mooy fexe ba euh, dal ñu fexe ba dal am su loolu amut it nañ ko rétablir rétablir l'ordre mooy su dee dem na ba dal amul nañu delloo ci dal gi ne leen nag loolu mu leen sant mu ngi daw bis ni ki tey nga xam ne moom laa commencé sama tournée bi ba keroog ma koy jeexal incha allah muy le 23 ma ne ko capitaine man lii gis ma lu ko fi jar ndax man gis ma lu fi lu fi perturbé ordre bi ma ñëwee dëggu ci dëkk bi ba léegi imam laa seeti jóge ci imam ñëw seeti euh, monsieur le curé te su ma jógee fii euh, ñu toogal fii xalif général de mourides laay seeti bu ma jógee foofu am naa ay mbokk yu nekk fi ma seeti leen bu ma ci pare dinaa dem fële ca quai de pêche bi ci port bu man gis ma lu fi andi perturbation mu ne ma waaw attroupement dafa am fii ci buntu jàngu bi ma ne ko su attroupement mi man daanaka kenn dégguma ma woo kenn ne ko génnal yàllaa def nag ma ne ko yow capitaine su ma ñëwoon seetsi la sa kër mun naa ñëw gaare oto dugg man dong waaye balaa may génn attroupement dina am foofu waa koñ bi bu ñu yéegee ni Ousmane Sonko ngi fi ñu bari dinañ génn ñëw taxaw loolu nag yàllaa ko def mënuma ci dara yàllaa ko def dama ko koy sante ndax du sama mérite man soxlawuma organiser ay film ak ay théâtre ci VDN bi di génne ay nit taxaw pour ñu waxal ma yàllaa ma may loolu su ma génnoon taxaw fii léegi ci buntu kër gi koñ bi fees del dama koy sante yàlla waaye man wowuma kenn ne ko génnal mane ko démb bi may def sama live ndakaar dégg nga bi may wax ak nit ñi nee naa leen ñëw ma meeting ñëw ma campagne électorale defuma karawaan waaye nag su ma duggee cib dëkk waa dëkk ba yépp daje ci pénc bi ne dañ may teeru loolu moom gannaaw yàlla kenn mënu ci dara ñu génnee ci noonu jóge ci curé bi di dem ci Euh, euh, balaa ñuy dem d'ailleurs ci ñi toogal foofu communauté murit ñi ngi doon jàdd pour seeti euh, dégg nga maam quartier traditionnel Joal bi ñoom ñoo ne woon dañu ñëw seet si leen ci fi nga xam ne mooy fi ñuy daje def grand place yooyu sax yu ci bëri gis ngeen ko ci live bi ñu dem foofu nuyoon teeg ñoom gis lu toll lu kenn xamul ci ay alkaati ci biir dëkk bi seeni camion seeni pick-up lu nekk ñu jëlee ko ndakaaru andi waaye bi ñu génnee foofu ba dem ci troisième étape bi wala quatrième étape bi dugg ci biir jumaa ji di nuyonte kilifa ya ca lañu commencé ñoom di sànni ay lacrymogène ci biti muy lu ñaawa ñaawa ñaaw ñu génn continuer tuuti ndax dama am goro gu dëkk foofu ci kaw tali bi mu wàcc dugg di nuyu samay goro ñu commencé di sànni lacrymogène ni ci buntu kër ga lii nag niñ koy tuddee mooy intimidation la ko ñëpp tuddee waaye man jàpp ma ni intimidation la li ma jàpp mooy ki leen yebal ñoom ñëpp muy président Macky Sall tiit na tiitaange goo xam ne jaaxle na jaaxle goo xam ne ñàkk naa gëm yàlla ñàkk gëm goo xam ne parce que lu jeex jeex na loolu yàlla bi ko yàlla tuddee ni moom moom la yàlla da ko yombalal yépp waaye bu yàlla tuddee ni jeex na màndarga yi day feeñ ne fang waaye moom ñàkk gëma di yàlla gi mu ñàkk gëm yàlla moo tax mu jàpp ni war naa mën a forcer mbir yi ba jàpp na ni Ousmane Sonko warul yëngatu ci réew mi seen stratégie ñoom mooy fexe ba kuy politique rek na nga toog ndakaaru bés bu ne ñu dugal la ci ay débat yu ñàkk fulla yu amul solo ñu jël ko amplifier ko par voie médiatique ñu bàyyi li nga xam ne mooy fulla Sénégal nekk ci débat yoo xam ne am diw andil diw diw wax na lii diw for na lale diw saaga kii noonu nag la ñuy piéger homme yi ba ñu bàyyi farata gi farata gi kuy kuy am politique fi toll nii mooy dem dajeek askan wi rawatina nag ñun ñi nga xam ne biir nañu boo ubbee xolu sénégalais yi ñoo ngi ci biir fu ñu génn yi woon ñu cofeel ak mbëggeel waaye surtout yaakaar bu ñu am ci ñun ak lañuy liggéey moo tax piège boobu bulle boobu nga xam ne dañ koy alimenter jaarale ko ci waxu média réseaux sociaux ñun dañ ko yëkkati teg ko fële dellu si ci réalité bi te réalité bi mooy feeñu jóge ci àll ba fekk fa sénégalais yi saafonteeg ñoom ñu wax ñu seeni jafe-jafe ci suuf suñuy jaay seeni jafe-jafe ci ñàkk liggéey seeni jafe-jafe ci seeni pajukaay seeni école seeni jafe-jafe ci seen eh, ji seen seen seen seen récolte yi nga xam ne jaaxle nañ ndax dañ ko mën a jaay am déet loolu mooy réalité Sénégal te ci réalité boobu lañu fas yéene nekk fukki weer yi di ñëw may wax nag Macky Sall pour mu dégg ko bu baax ndax man du ma wax ak ministre am ab suq la rek bu ñu yónni du ma wax ak préfet dañ koo def loo rek mu def du ma wax ak ñii nga xam ne ndeysaan ñoo ci gën a sonn alkaat yi ndax li ma gis tey ci gendarme fii ci Joal te li ci ëpp jóge ndakaaru bi ñuy dugg mbuur li ma gis tey ci gémi ñu rangale seeni camion te li ci ëpp jóge ndakaaru ñu leen di sonnal di leen fanaanloo ci mbedd mi waaye baax na ci tournée ndax gëm naa ni nag maa ngi doog a am kaaraange ndax lii ma gis nii président la république sax duñ ko jalonel noonu buy génn waaye may wax ki leen yebal ñoom ñëpp muy Macky Sall ma fàttali ko ni bi ñu dooree jàkkaarloo moom ak man ba tey xam na ni su amee ku ragal moroom moom moo ma ragal moom Macky Sall xam na ni lu toll ni tarfata ayn ci ragal lu jëm ci moom man awma ko bu doon dese na sago ak xel dina xool neneen lu muy doxale moom moo yor nguur yor l'armée yor police yor gendarmerie yor justice te su tëddee ku ko yewoon trois heures du matin ko Ousmane sonk mu yuux àll bi yëpp waaye waaye awma lu toll ni tarfata ayam ci ragal ko malgré li mu yor yëpp ma koy gaaral nag di ko garantir ni ko bu soobee yàlla nemmeeku tuur bii ñu door niñ ko commencé lañ koy wéyalee ñu mu gën a calmer bu ñu xëyee ëllëg dañuy continuer dem fi ñu war a dem muy Malikunda muy beneen dëkk muy beneen dëkk dinañu continuer suñu nemmeeku tour ndax ñun kenn mënuñoo intimider bu dee nag nii lañ ko bëgg a doxalee lañu andi ci armée gendarmerie boobu andi ko ci police andi ko ci renseignement généraux loolu lépp nañu topp fu ñu dem rek waaye du tee nii ma ko commencé bu soobee kiy bind dinañ ko yeggalee noonu may wax ak nag patriote yépp na seen xel dal na seen xel dal nañu continuer la ñuy liggéey ñoom nañu jël seen responsabilité ci provocation yi ñuy def te àdduna yëpp gis ko lu ci am rek ñëpp dinañ ko gis may dellu nag di waxtaan ak sénégalais yépp kilifa yi citoyen ordinaire ak ku mun munti doon tooñ baa ngi bëgg a ëpp de te ñëpp koy gis ci la ñuy xëy ci la ñuy gont moom Macky Sall am na sañ-sañ saa yu ko neexee mu taal otoom dem fu ko neex ci réew mi dajale nit ñi jox leen xaalis pour ñu yooxu waaye ñun amuñu sañ-sañ génn ci réew mi dem dajeeg Sénégalais yi ñu leen jox xaalis te fu ñu dem par yàllaa ko defee noonu Sénégalais yëpp génn ñu saafoonteeg ñoom wax ak ñoom. loolu du am de dinañu continuer suñu tournée incha allah nii ñu ko doxalee moom gendarmerie ki ko jiite fii nee na man amuma droit am convoi waaw kan moom mun a gis Ousmane Sonko fii mu toll ci réew mi ne mu ngi génn moom donc di dawal otoom wala moom ak chauffeur dama ngay dem tournée dëkk bi bis bu ne convoi am fii moo xam sëy bu ñuy takk moo xam ñuy dem sport moo xam leneen ak leneen moom moom bis bu ne mu def convoi waxuma convoi politique nag waxuma convoi boo xam ne état wee ko tax a jóg waaye convoi politique bis mu ne mu def ko ay ñoñam bis bu ne ñu def convoi dinañ def convoi ma ànd ak ñi mu war a ànd ak yépp ñu def suñuy oto sama sécurité mat sëkk sama communication nekk ci ñu dem nemmeeku ñi ñu war a nemmeeku lii nag dañu bëggoon waxtaan tuuti ak Sénégal yi te gën a dalal xelu ñi nga xam ne am nañu jiixi jaaxa àdduna dafa am fu muy tollu ku nangu nooteel ak jaay doole luñ la tegati dagan na dañoo nekk ci réew bu tudd Sénégal am ay chart moom mii di wax tey diggante 2009 ak 2011 dafa wër Sénégal yépp président Ablaye Wade mosu koo tere ne ko doo dem doo dugg dëkk sàngam te musul dem moom dong da doon ànd ak ay ñoñam ñu dem kon suñu nangoo tey mu imposer ñu lii bu yóbboo ñu arrêté li ñuy liggéey li yëngu nag li ko yëngale ko ëpp doole mooy tiitaange bi nekk ci ñoom jamono ji élection yi ñu génn ñëpp gis nañu réewu taax yépp wala dëkku taax yépp dañ koo ñàkk boo gisee bi ma ñëwee mbuur dama ne man mbuur commune taxumaa jóg waaye dëkk dëkkaan yi ci biir ñoo ma tax a jóg ndax mbuur commune ñoo ko gañe woon ci élection bi passé donte ñoom ñoo gañe département yi fu ñu gañe département rek ñun ñoo gañe commune bi moo tax man dëkk dëkkaan yooyu moom ma intéressé te kenn mënumaa tere dem ci dëkk dëkkaan yooyu kon mbokki Sénégal dañoo bëgg ku am kàddu war a mën a wax ak Macky Sall ne ko li mu nekkee du dëgg na waxtaan ak moom ndax moom mooy taal fitna ci réew mi bi mu fi nekkee ba léegi fitna ci fitna la tegu ku am kàddu mën ko koo wax na téye loxoom ndax xale yi ma gis nii ragaluñu ko de su génne Euh, un million de de alkaati fii xale yi ragaluñu leen sànni nañ tey seen lacrymogène benn xale bougéwul fi mu taxaw loolu nag bu yàggee ci fitna lay jur fitna lay jur ci dëkk bi kenn mënuma imposer ma dem toog ndakaaru naan maa ngi xaar 2024 damay def samay tournée citoyen la am naa droit circuler fépp ci Sénégal kon nañu waxante dëgg su coow amee de nañu seet kan moo tooñ ñu jàpp ci loxoom ne ko tegal ci suuf ndax li ngay def baaxul ci réew mi bu ko mënul nag ñun ñépp nag du question par parloo de ñun ñépp ñoo war a ànd mànkoo jàkkaarloog moom ndax lii su wéyee nag lañu amoon ci démocratie Sénégal te li muy wund mooy liberté bi sénégalais bu nekk am dem ak dikk dem nemmeeku ku la neex loolu la Macky Sall bëgg dakkal ci réew mi ndax dinañ ko nangu ndax di ngeen ko nangu loolu mooy la seule question man nag en ce qui me xalaatuma ko nangu moo tax ma ne leen bu soobee yàlla ëllëg dinañ wéyal nemmeeku tuur bi te bu dee makki Sall mën na dëgg dëgg dëgg dëgg 46 départements yi 553 communes na waajal ay camion mag ay dragon mag ay pick-up mag fu ma dem nañ ci topp rek ba ñu xam fu muy mujj ñu ngi leen di gërëm di leen sant asalaamualeykum chers compatriotes euh, je reviens à vous à peine 24 heures après ma dernière sortie pour apporter quelque éclairages sur les événements d'aujourd'hui. Ce qui s'est passé est indigne d'une démocratie comme le Sénégal. Ce qui s'est passé est la parfaite illustration des velléités dictatoriales de Macky Sall et de son régime. De quoi est-il question J'avais annoncé depuis très longtemps notre programme de tournée nationale. En tant qu'acteur politique, c'est un minimum que de sillonner le pays à la rencontre des Sénégalais pour échanger recueillir leurs doléances, vivre avec eux leurs problèmes, mais également pour partager avec eux les solutions que nous proposons pour amener le Sénégal à un autre niveau. Cette tournée, nous l'avons démarrée aujourd'hui. Vous m'avez tous entendu hier dire clairement que je n'appelle à aucune mobilisation, aucun attroupement, parce que je ne suis ni en campagne électorale et je ne suis pas venu pour un meeting. le concept du Nemmeeku Tour, qui peut signifier en français rendre visite aux citoyens là où ils habitent. Le concept du Nemmeeku Tour, c'est effectivement d'aller au plus près des réalités des Sénégalais. Et c'est pourquoi quand nous entrons dans une localité, particulièrement le milieu rural, nous allons rendre visite aux autorités religieuses, au chef de village. Nous allons rendre visite à nos militants chez eux. Et il se trouve que par la grâce de Dieu, nous avons atteint un niveau de popularité dans ce pays qui fait qu'à chaque fois qu'on est annoncé quelque part, les populations se mobilisent spontanément, certains par sympathie, d'autres parce qu'ils sont carrément partisans et d'autres par, par curiosité. Mais les citoyens se mobilisent spontanément pour venir nous rendre visite. pour venir à notre rencontre. Et aujourd'hui, nous avons commencé cette journée. Nous avons pu commencer par la commune de Niagagnan pour présenter des condoléances. Nous avons continué sur la commune de Guénienne, où nous avons été très bien reçus par les populations. Il n'y a eu aucun trouble à l'ordre public. Nous avons échangé tranquillement avec les populations qui nous ont reçus à la place publique du village. Le chef de village était là. Les deux de village. L'imam était Les dignitaires et notables étaient là. Les femmes étaient là. Les jeunes étaient là. Nous les avons écoutés et nous leur avons parlé. Nous sommes sortis de cette première étape pour passer dans dans un autre village à côté, où nous avons rendu visite à l'imam Ratib et à quelques-uns de ses collaborateurs avant de nous acheminer vers Joal. Et c'est là où les problèmes ont commencé. À Joal, Nous sommes d'abord allés rendre visite à l'imam. Ensuite, nous sommes allés rendre visite au curé avant de continuer pour rendre visite à la communauté euh, traditionnelle de Joal et enfin aux représentants du Khalif général des Mourites qui est une autre autorité qui prie énormément pour nous et d'une autorité publique. Évidemment, tout le quartier ayant été informé de notre passage est sorti pour nous attendre devant la maison de l'imam. À la sortie, on les a salués et on a continué directement chez le curé. Et le capitaine de gendarmerie et son adjoint sont venus nous trouver dans le salon même du curé, ce que je considère comme un sacrilège, parce qu'il y a des justes dans ce pays, et il faut qu'on respecte un certain nombre de paramètres pour dire qu'il avait besoin de me parler parce qu'il a reçu une réquisition du préfet du département. Je lui ai demandé poliment d'évacuer la salle et de nous laisser terminer parce que j'aurais été chez certaines autres autorités religieuses de ce pays, ils n'auraient jamais eu le courage de venir nous trouver à l'intérieur pour faire ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et quand on est sorti de là-bas, il nous a parlé d'une réquisition. Nous lui avons demandé de nous la présenter, ce qui fut fait. Et nous avons vu que dans cette réquisition, le préfet leur demandait de maintenir l'ordre, ce qui est tout à fait euh, de euh, l'ordre euh, du normal. C'est leur travail. Ou de rétablir l'ordre si celui-ci venait à être perturbé. Et que cela

qui risquaient de créer justement ces troubles à l'ordre public. Et qu'ils ne peuvent pas venir me trouver chez une autorité religieuse, à l'intérieur de son salon, pour me parler de troubles à l'ordre public. Et nous sommes sortis de là-bas pour nous acheminer vers l'étape suivante. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à tirer des grenades lacrymogènes contre les jeunes badauds qui étaient sortis spontanément parce qu'ils ont appelé, que j'étais de passage. C'est indigne d'une république, ces comportements. Notre gendarmerie nationale doit être redéployée à autre chose qu'à ces basses besognes. Et je peux vous assurer que j'ai même pitié de ces gendarmes qui sont des citoyens comme nous, ont leur ressenti. Ils savent très bien que ce qu'on leur fait faire, s'ils avaient le choix, ils n'auraient jamais fait. Et c'est dommage, et c'est à l'image de celui qui est la tête de cette gendarmerie nationale aujourd'hui. C'est dommage parce que c'est la gendarmerie aujourd'hui qui trouble l'ordre public au lieu de, la, de le maintenir. C'est dommage parce que, à force de se comporter comme ça, ils ont fini par créer une situation des défiance systématique vis-à-vis des forces de l'ordre. Parce que durant tout le temps qu'ils sont livrés à ces tirs de grenades lacrymogènes, ce qui était frappant, c'est qu'aucun jeune n'a bougé de là où il était. Et c'est une autre république que nous voudrions que cette image d'une gendarmerie désacralisée pour faire des tâches politiques, voire politiciennes. Mais ce que je voudrais dire à M. Macky parce que je ne m'adresserai pas à tout le reste de la chaîne. Ils ne sont pas mes alter-échos ni mes interlocuteurs. C'est qu'il perd son temps. Depuis sept ans qu'on se fait face, s'il n'a pas encore compris qu'il ne m'inspire aucune peur, quand je le vois agir ou parler, c'est un tout autre sentiment qui m'anime que la peur. De lui et de moi, s'il y a quelqu'un qui éprouve ce sentiment de peur vis-à-vis de l'autre, tous les Sénégalais savent que c'est Macky Sall. Caché derrière sa gendarmerie, caché derrière sa police, caché derrière sa justice, caché derrière ses renseignements généraux, caché derrière ses partenaires étrangers qui lui donnent tout ce qu'il veut en termes de, de moyens de répression. Mais malgré tout, il est passé même de la paranoïa à la schizophrénie. parce que ces comportements sont des comportements schizophrènes. Et je voudrais demander à tous ceux qui, dans ce pays, sont épris de justice, mais surtout de paix, tous ceux qui tiennent à la stabilité de ce pays, je voudrais leur demander, en tout cas à tous ceux qui peuvent avoir la possibilité de lui parler, de le ramener à la raison, parce que ce pays ne sera jamais transformé en une dictature. les Sénégalais se sont beaucoup battus pour avoir ce niveau de démocratie que nous envie tout le monde. Et ce ne sera pas avec Macky qu'on tombera dans une ère de dictature. La Constitution garantit un certain nombre de libertés, parmi lesquelles la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion et la liberté d'association. Macky Sall n'est pas au-dessus de la Constitution. Lui, il peut se permettre d'organiser ses balades quand il veut, des simulacres de balades, des mises en scène dignes du Grand Théâtre ou de Sorano. Mais nous, nous n'avons pas le droit d'organiser nos sorties. Et si c'est un crime aujourd'hui d'être populaire, nous sommes d'accord euh, d'être pénalisés. Nous n'avons pas besoin d'appeler les Sénégalais pour qu'ils sortent. par la grâce de Dieu, nous avons atteint ce niveau. Je le dis sans pédanterie, je le dis avec toute l'humilité qu'il faut, mais c'est la c'est ça la réalité aujourd'hui au Sénégal. Et je continuerai avec tout mon staff, parce que la gendarmerie nous dit que nous n'avons pas le droit d'avoir un convoi. Au nom de quoi Je ferai une tournée nationale dans une seule voiture, moi seul Sonko, ou moi et mon chauffeur un garde du corps. Jamais. Je rappellerai au Sénégalais et au monde entier que de 2009 à 2012, Macky Sall a fait le tour du Sénégal. Lui-même, il s'en vante en disant qu'il a fait plus de 4000 villages ou je ne sais pas quel autre chiffre. Il a fait le tour du Sénégal. Ce que je suis en train de faire. Ablaye Wad ne lui a jamais interdit de faire ces tournées-là. De 2009 à Et aujourd'hui, il veut nous interdire à nous de faire ces tournées. Au nom de quoi En réalité, cette schizophrénie cache mal une réalité. C'est que dans leur stratégie, ils ont toujours voulu cantonner l'opposition à Dakar, créant tous les jours un nouveau sujet de débat futur, amplifié par les médias et les réseaux sociaux. Des débats qui relèvent plus du fait divers que de la réalité du vécu des Sénégalais. Et c'était ça leur stratégie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont perdu ce pays, qu'ils ont perdu l'estime des Sénégalais et que nous, de l'opposition, qui, qui, avons gagné cette, cette estime, il ne nous reste qu'à aller à la rencontre des Sénégalais pour parachever le travail. Et c'est ça qui leur fait cette peur bleue, qui les amène à se comporter de cette manière-là. Lui, il a annoncé ces tournées économiques qui ne sont que des tournées politiques déguisées. Et moi, je n'ai pas le droit de faire des tournées. L'injustice a atteint un niveau extrêmement grave dans ce pays. Les gens ont l'habitude de regarder faire et dès qu'on réagit, ils essaient de nous coller l'étiquette de violence. S'il y a des non-violents dans ce pays, c'est nous. Nous sommes toujours attaqués. Nous sommes tués. nous sommes emprisonnés, nous sommes empêchés de circuler aux yeux et aux yeux de tout le monde. Et il suffit qu'on réagisse une seule fois pour qu'on dise qu'on est violent. Et je voudrais rassurer les Sénégalais enfin que nous allons tranquillement continuer cette tournée demain, s'il plaît à Dieu. Ce qu'ils ont déversé ici à Hambourg en termes de gendarmes et de gémis, je crois que s'il arrivait quelque chose à Dakar, ils n'auraient pas suffisamment de troupes pour réagir. Mais ça ne passe pas parce qu'ils ne peuvent pas nous intimider. Demain, nous allons continuer tranquillement notre tournée dans les communes qui sont prévues. Nguyen, Panguyen, Malikunda et autres. Certainement, peut-être les communes du sud de, du département. Et nous la tiendrons comme nous l'avons démarré aujourd'hui. S'ils peuvent nous suivre avec ces pelotons de gendarmes, de génie, tous ces camions, ces pick-up, tant mieux, ils n'ont qu'à nous suivre. Mais rien ni personne ne pourra nous empêcher, chez le Père Dieu, de continuer cette tournée sur l'ensemble du territoire national. Le Némékoutour continue de plus belle. Sénégalais et Sénégalaises, je vous remercie et vous souhaite une bonne soirée.